natu Medina TV HD maa ngi leen di nuyu am mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ku ne xam na ne Medina TV HD dafay topp actualité ba tax na semaine bi ñu génn ku ne gis na ne euh, dafa am benn sëriñ boo xamante ne génn na ne dafay xar géej gi. ku ne gis na image yi gis vidéo yeeg yooyu dama ci xuus nag tax ba tax na tey dama ñëw fii ci Soumbédioune ku gis sama ginnaaw xam ne maa ngi fii nga xamante ne moo di Soumbédioune fii lañ naan nag fii la Lëg Daawur Mbay nekk ba tax na nag tey benn sëtam laa seet si di ko dalal mu di kan Xaadim Mbay kooku nee naa la kenn doot ko présenté dama koy daal di bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi koy seetaan di Mbay maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Medina TV HD lay fay sama jarbaatu xol dala yàlla def jàmm quoi ñu ngi lay sant la gërëm di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm ñuy Sénégal yëpp yàlla na fi jaamu waaj sax fi dakk lool waaw waa kay am nañ mbégte ak contentement lool ci dalal bi mu ñu dalal ku ne xam na ne jotam yombul te ba pare moom waxam dafa daal di jafe lool tey kon am naa mbégte ak contentement lool ci dalal bi nga xamante ne dalal nga ko fi nga xamante ne moo ci Soumbédioune mais xaadim ñu gis ne dëkk bi bëri na yëngu yëngu gis yëngu yi nga xamante ne jàll na fi bu yàggul ku ne gis na ni accident yi tamit bëri na ba tax na Macky Sall mi nga xamante ne mooy suñu président bëri na cortège yoo xamante ne jiital na ko di dem bëri na ay choc ci am lu waral loolu noonu ak dëkk bi yëngu-yëngu yi waaw tout d'abord maa ngi sant yàlla bu baax a baax di julliwaat ci sang-sang yi quoi di jël nuyoo ci kàddu jaraaf Youssou Ndoye donc sama xarit sama kilifa mu nekk jaraafu Cap-Vert jaraaf Youssou Ndoye yàlla sa jàmm yàgg ñu lay ñaanal bu baax a baax donc loolu duma ci mën a sori wala duma ci mën a xuus bu baax a baax a baax a baax mais réew mi li fi xam ñëpp xam nañ ko. donc accident yi bari na cortège yi bari na donc ñun coow li fu mujjee jaar ni amoon nañ ci pas de responsabilité bu rëy boo xam ne nii doon nañ ko def donc te ki ko doon def jege woon na ministre intérieur bu jege jege jege donc te yaakaar naa ku wax lu dëgg moom xam na doo doo toog di wax naan kooku jege na ministre intérieur bu jege jege bi coow li tàngee ba tàng xam nga lébu yi génne nañ. donc dëkk bi doon takk premier pas bi ñu waroon def def nañ ko fayoon nañ coow li donc yàlla dimbalu ci mais loolu ci lébu yi la jóge woon quoi wax dëgg yàlla loolu moom defoon nañ ko yàlla dimbaluñu te fii nii ci place yu lëg daaru bi fi lañ taxawee doon def li ñu doon def donc xam nga sarax ñi fi war a def def ko yaakaar naa dip boobu léegi nii xam nga dara tuuru fii nii bi Dakar leneen la ci des nag moom xam nga dafa waroon nekk continuer quoi dafa waroon continuer donc amoon na yoo xam ne waroon nañ ko def te defuñu ko tamit duñ topp ci ginnaaw kenn daw naa ko kaay def lii tollatuñ tollatuñ foofu noonu. Euh, su ma la déggee bu baax nga ne coow le waxoon maanaam affaire bi waroon na am continuité lu tax lu jaaroo leen fi ngeen war a jaar ba mu am continuité. non duñ jaar fi ñu war a jaar parce que xam nga lébu yi moom xam nga lébu dafa nekk benn affaire boo xam ne nii dafa xaw a garaaw. lébu loo ko dugalul lu ci dugg te coow yi bari na trop ku nekk mi ngi wax mais ba léegi dégg ko benn lébu génn àddu jaraaf si ndoy sax dégg ko mu génn addo comprendre ga donc ñun foofu lu ñu mënoon def rek moom mooy man ki man ki ma contacté woon man ki ma contacté woon pour ma cooy bu mu fi jotee am dëkk bi tàkk ak affaire gars yi booy toj océan ak affaire yi quoi comprendre nga dama la kooku dafa jege ministre intérieur trop da koo jege trop du yeewu te gisu ko te du xëy te gisu ko li may ni seen Sénégal ñëpp mooy dégg comprendre nga te bañ ci defee la ñu war a def loolu arrêté na waxoon na bu ñu paree lii ngeen di defaat fu soobee gën a fay mais dinañ topp naan kaa ñu def lii mhm. loolu leer na. Euh, ñu ñëwaat ci leneen loo xamante ne fi mu toll nii ku ne xam na ne élection yaa ngi dëmmal ku ne gis na xëccoo bi bëri na pëccëxoo bi bëri na seen biir ñoom ñii nak naka nga gisee élection yi ak nak lan nga gisal Sénégal fi mu toll nii ci jamono yi ñu jëm. ah mais xam nga ne sama mooy man dama nekk international quoi affaire politique du ma ci wax. dëgg du ma wax ci affaire politique mais benn rek loo xam ne mën naa ci wax te donc loolu jaraaf Youssou Ndoye moo ñu ko santoon pour ñu def ko. te def nañ ko awee cœur ouvert amuñu fi luñ ci ñëw regretté bi Macky Sall di falu deuxième mandat bi nii donc jaraat ko ñëpp këram danañ jàppale Macky Sall pour mu gagné deuxième mandat bi mais boobu lëbu yi rek ñoo génn wax ne Macky Sall day gagné premier tour ak lu mu mën a xew dañuy premier tour taxaw naa sax wax ko mais après donc moo loolu mais man du ma politique quoi mais nag jaraaf moo xam fu ma jaarloo damay jaar foofu noonu tamit mu àndal kooku lay àndal parce que. du du keneen du président bi du keneen mais jaraaf laay àndal lu mu wax loolu laay wax lu mu waxul loolu du ma ko wax su ma doon ba quatre heures matin moo mën a mën a dugal ci géej gi damay dugg ci géej gi parce que fii maa ngi fi cinq heures du maa ngi fi six heures du matin deux heures du matin ba dugg ci géej gi comprendre nga kon loolu du ma wax na ñëpp am nañ fit boobu noonu quoi donc mais am na loo xam ne dafa ñoom ñu ko moom nañ ko bàyyi ak moom géej kenn duñ ko jàngal quoi mm-hmm. ba nga waxaat leen ma macha allah loolu am na solo ñu ñëw ci beneen euh, affaire boo xamante ne dañ koy nemmeeku tout le temps ñu gis ne ku jug rek ne lëg daawur sama maam la ku jug nag ne surtout lëg daawur laa naka la nit di bokkee ak lëg daawur ak ci ban anam la nga ñu mën a tekkilee li nga bokkal ak lëg daawur. en fait xam nga tey bu ñuy wax ndëg daawur ndëg daawur bu ñuy wax ndëg daawur ndëg daawur wàccul maamu kër kenn na fii laa dëkk. te da nga wax di wàccul maamu kër kenn fii laa dëkk c'est ini li indi ñaan baatu baatu sëtul daaw sëtul ak daawur saa da ngay bokk ci ci affaire bi da ngay bokk ci tuur yi comprendre nga lëg daawur sa maam lay nekk nga wax ne man sëtul ak daawur la ñu ràññee la ci xàmmee la ci comprendre nga mais fii ñu toog nii tey ñun bu ñuy tuuru ndëg daawur fii la ñuy taxaw di tuuru fii la ñuy taxaw man fii laay taxaw di tuuru la ndëg daawur. lu waral ngay taxaw fii fii la nekk wala. mais xam nga tey Île de nii. ci ginnaaw boo dee dem Île Serpent fii nga jëlee gaal pour dem Île Serpent comprendre nga donc Île Serpent la fa nekk lépp man mënu ma la ko wax fajkatu rab yi dëgg dëgg dëgg am na ci ñu bari ñoo xam ne ñemewuñu Île Serpent. xam nga Île Serpent dafa am ñaari ñaari ñaari non du ma wax secret bi quoi parce que. ñi taxaw di wax naan ay lëg daaw nii affaire non non Medina bëgg nañ ku leen leeralal ci loolu ndax toujours day lëndëm ci seen bopp. xoolal doomu Medina yi fi nekk ñëpp ay sëtu lëg daawur lañ laaj ma moo tax parce que lëg dafa nekk fii sumbu junni comprendre nga di aar Medina yëpp bañ na ko génn sax day nekk fas di génn lëg daaw da fekk nga tëdd ni nga toogee baaxul mu avertir ne la eh, fii bu fi jaatawul bu fi toogati xam nga. parce que loo tax ñu naan lëg daaw rek ci géej gi maam maal gi ngi ci géej gi sàmm sama sëdi sàmm sama doom yi comprendre nga kon mu ngi sàmm bu baax dañu aar mais ni ki danga koy jox cër bi mu moom valeur bi nga xam ne kii lii la lii la lii lii la nàmpatal te ci lii lañ ko yar te ci lii la judd moo xam fan la histoire rab nekk pour pour nga mën a pour nga accompagner mais xamale ku jóg ne surtout lëg daaw ne affaire yooyu quoi cool yi nekkul foofu de sama jarbaat sama jarbaat xam la cool nekk ku mën dafay ñëw nga def mais gars yi nañ bàyyi wax ji gis nga lëbu yi dafa neexul wax gars yi daal ñoom Dakar xoolal ku ñu neex ñu fal la ku ñu neex ñu wàccee la ci ay secondes yu néew amul sax ay dem xaaral ma dem te ñëw 24 heures ñu wàccee la bul sonn fii ni ñu ci wax ji ngand ngandul yëpp kenn mënu ci dem jaaro jaaroo ci lëbu yi ñu defal lay bagage comprendre nga mhm. donc nañ delloo. ñi nga xam ne ñoo xam rab bi dëgg-dëgg dañ leen delloo seen i seen i seen i ak seen i seen seen i seen i yelef mhm. man ututuma bës si àdduna yow rek bi nga ñëwee topp nga ma ay fani fani fan ma la ma fayul nangam du ma def émission bi comprendre nga parce que utuma bës yaa ngi dégg at bi mun naa la su ma ci waxee balaa ma ciy waxti yàlla xam comprendre nga nekk ma sëriñ boo xam damay toog di fay internet pour ñëw di ma interroger may wax dox ma ci loolu ñi xam xam nañ pare mais li may wax ñi ko ñi ma xam dëgg bu ñu ko déggee xam nga dañuy xam ne carrément sëñ Xaadim Mbay may wax su lëg daawur mooy wax te damay faral di wax naa man li ma def ci lëg daawur sànni ko ko ci ay or sànni ko ko ci jox ko ci giléeb jox ko ci ay nag non ku ma traversé ma bàyyi la ak moom kenn yamaguma ci fii